ci Kouthia ñu sama seeti maître El Hadj Diouf dikkal dikkal ay ay ay ay ay ay ay ay way yaa yaa ngi may gaay ay ay ay ndeysaan sama yaram daw na gis nga caamaas kii na kii na Fatima Diallo kii réalisé Kouthia Show waa fii lay dem ci ambiance bi kon yaay aawu noonu Fatima Fatima yow li Fatima li boo yelloo di nga dellu ginnaaw de ci ambiance nga mujjee waaye xaadim jëlal ma lii jëlal ma ambiance bi xaadim jëlal ma ambiance woon ko ma ngay daw ma ngay daw ay waay ndeysaan dafa na montar ambiance ndeysaan muy réalisé Kouthia Show musuma ko fekk fii ndekete day aaw lay lay lay ñàkk dégg sa tur baaxul di ko dégg si bés bu lay xëy dégg too ko loolu ko dal bilaay buñ wax dëgg yàlla nga sara sunu xol wallaay yàlla loolu moom sunu borom def na ko ci yow ndeysaan Fatima wax dëgg yàlla di waaw wax dëgg yàlla heure buñ la fi invité maître ma di nga ñaa nga sara wax dëgg yàlla ci ni ngay dugg si ci ni ngay toogee waaye ci ni ngay waxtaan askan wi waaye nag képp nga gën mooy Fatima wax dëgg yàlla mosu fee jógee fii la ne. waaw dama ko gis xale yi muy tàccu. waaw xam nga ambiance ko jàpp rek. <laughs> ndeysaan ambiance ko jàpp rek xam nga ne moom ñetti at. def na fa juróom-ñetti wax dëgg yàlla bi muy ñëw fii fan sa club yu sundur ko fi indi woon. yàlla dogal nag wax dëgg yàlla tey mu def lu lu doy waar nag tàccu bi ak fecc bi ba nga ba sarlal ndiku. ba sarlal <laughs> ndiku xam naa ne caméraman bi ko jëloon nag ndeysaan <laughs> waaye nag dee koy tudd dee koy may dédicace pour ñu xam ne mu ngi ci kër gi incha allah rabi ñu leen ko may dédicace Fatima Evans ñu ngi lay nuyu waaye mbokk yi tey dañoo invité sunu paa yi invité sunu xarit africain bu mag bi avocat bu mag bi kii nga xamante nii wax dëgg yàlla mooy le grand Saint-Louisien maître ba dëkk ñaa maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay di kontaan nag bu baax nag caamaa si lañ ñuy bu baax ci li nga xam ne moom moo indi ci dossier Kouthia bi moo tax nag tey ma ñëw bàyyi sama activité yëpp nag reprendre li nga xam ne moom mooy cour d'appel bi pour état Sénégal nag rentrer ci dans les fonds de Kouthia dëgg la actuellement ñu am loo xamante ni nii li ñu war a waxtaanee wax dëgg yàlla maître ma dëkk ñaa juñu nga ko léegi léegi moom yoo xamante ni nii Kouthia da ko defoon ci réew mi jàpp ci ceebu waala bi li ci liggéey ci liggéey bu am solo waaye maître dafa am leen rek loolu la bëgg a laaj Kouthia ndem dalaa wulu yëkkati li nga xam ne mooy dossier bi teg ko solo ko est-ce que Kouthia mosul ba noppi donc laa yóbbul dossier bi est-ce que Kouthia jotut a encaissé ba pare ñu bëgg nu ko moo tax mu bëgg laa dénk dossier bi wala lan la amul benn firnde boo xam ne état Sénégal fay na ko Kouthia je pense que Macky Sall buy jël xaalis di ko jox Kouthia xaalis bu passé 500000 sax état dafa war a bind. bu fekkee loo xam ne bu fekkee loo xam ne daka ka bu fekkee loo xam ne daka ka may ci boppam Thiamas est-ce que mën nga toog ma taxaw parce que <laughs> si laay gën a mën si laay a mën sawar mën ngaa toog ma taxaw. waaw gis nga bu fekkee état Sénégal dafa jël xaalis jox ko Kouthia da ko war a notifier ndax bu dee ne paas la mu ne ko Macky Sall ko jox naa la paas loolu amul notification. waaye bu fekkee dafa yëkkati xaalis jox ko danaan état Sénégal fay na Kouthia ci communication bi mu def ci ceebu waalo te xool nañu archive yi nga xam ne moo nekk ci palais bi xool archive yi nga xam ne moom la Kouthia yor amul benn trace bi war ne président Macky Sall jox na xaalis Kouthia kon Kouthia encaissé wul l'état du Sénégal doit reverser des fonds yoo xam ne dafa nekkoon ci fonds de sensibilisation et promotion pour le riz des vallées mmh. naka fay maki naka fay moo gën wax ji d' accord mais yow euh, euh, euh, wax dëgg yàlla tey bu ñu jëlee dossier bi teg ko sa loxo boole la ay avocat yu mu bari wax dëgg yàlla tey nga war leen a jiite war a jàkkaarloog ñee nga xamante ni ñu ñooy gouvernement bi tey sa premier cadre lan lay doon li may wax mooy monsieur le président du tribunal monsieur Thiam maa ngi lay xamal ne président Macky Sall li a fay mooy na état Sénégal fay ku caa xaalisam dëgg la parce que lu toll ci juróom-ñaari weer ku ca ànd ak ay xale yoo xam ne kenn ku nekk ñu ngi dund ba tey yàlla na fi yàlla bàyyi ñu wér oration ngi ci liste bi Ablaye Ndiaye ngi woon ci liste bi dërëm mu ngi woon ci liste bi Mati Sam mu ngi ci liste bi ak ak liste bi yaatu na ak cameraman ñoo ñëpp équipe la boo xam ne dañ ko doon tënk di kon état Sénégal na jël xaalis bi nga xam ne plus de fait yow sax defe naa ne. yaa ngi ci woon kon ñoom ñëpp ci liste bi. état ci boppam Macky Sall moo war a yëngu xaalis bu takku jox ko Kouthia fay ñi nga xam ne ñoo doon liggéey parce que sinon dinañ yàq dara Kouthia parce que Kouthia dañ ko plainte de. Kouthia ñi ngeen doon liggéey ñoo ko plainte plainte boobu nag plainte jox nañ ko joxuñu ko jox nañ ko ba Kouthia dégg ko Kouthia plainte état Sénégal pour Macky Sall fay ko xaalisam mais Macky fayal kii xaalisam yow tamit. d' accord mais maître est ce nga yaakaar ni ni ku wax dëgg yàlla ceebu wàll bi nu doon déggee ci réew mi askan wi di ko jariñoo wax dëgg yàlla tool yi di ko jariñoo yaakaar nga ni fi mu toll nii niveau bi wàccul en en 100 pour cent. ah ceebu wàllam naka Kouthia songee woon. da ka wax ba ñëpp di ko dégg ba ca Kouthia génnee làmmiñam la ceeb bi cité. lañ koy bi cité. te baykat yi wax nañ ko. Mhm. baykat yi. wax nañ ko waaye ba Kouthia waxee ba ñëpp ñam ko ñaka ñamoon ba tàmm ko mënutuñ ko bàyyi te ñu ngi koy consé ba tey mhm. boo demee ca waalo monsieur le maire de Ross Béthio mun na témoigner mhm. nee na Kouthia li ma def ci ceebu waalo bi kenn mënu koo wax boo demee ci Kaffrine benn sëriñ bu mag Mbàkke Mbàkke la ne président Macky Sall joxal Kouthia ndax moo ñu jàppale ci ceebu waalo bi moo ko jaay. Mhm. na Macky Sall woo Sénégal yëpp toog mu ne Kouthia dama koy jox xaalis mhm. war na jox Kouthia lu mu gën a gàtt cent soixante quinze millions. cent soixante quinze millions yoo xam ne Macky Sall naka jox Kouthia. Mhm. buñ ko négocier ba négocier ko mën nañ ko ba cent millions ak fi mi toll. Kouthia nag mooy seet nan la mën a état mais euh, parce que ci la may fay. ci la may fay ci lay nga xam ne ñoom ñooy caméraman yi nekkoon TFM di ko doon jàppale. ak ceeb bi Kouthia doon jënd parce que Kouthia doon jënd ceebam gënam diwlin di ko toggal boppam te état jox ko dara. dëgg la dëgg la waaye euh, euh, wax dëgg yàlla maître ma dégg ñaa tey léegi léegi nii laal da laal tam bu am solo wax dëgg yàlla bu fekkee gouvernement bi dañ koo war a jox 100 millio liste bi nga xam ne Kouthia moom la teg mooy ñi ko doon ñu doon di doon jàpp ñu doon taxaw ci ceebu bi ñu doon caméraman yi liste boobu yaakaar naa ni mi ngi ak liste bi mu ngeeg man xam nga loolu Kouthia bu jotee xaalis bi dana xool na ma koy séddale dëgg la ñi fi nekkoon nag te nekkatuñ fi ñoom xëy na Kouthia dana leen jompal tuuti loolu Kouthia mooy xool na ma koy séddalee mhm. loolu Kouthia moo koy séddalee waaye article 1445 loi de la 1445 euh, loi de la consommation en promotion vertu de communication commerciale et marketing digli Kouthia ci boppam dafa am ay redevance yoo xam ne état Sénégal da ko war a delloo dëgg la parce que président Macky Sall loolu xale yaa ngi dem di yóbbu équipe nationale ñuy dem ñu ne jox ay millions et millions te buñ sax ay quart de finale te Kouthia def na ba ceebu waalo ngi dox président Macky Sall fayal Kouthia xaalisam fay ko xaalisam bilaay fay ko xaalisam da nga ko war a fay l'argent de Kouthia parce que man maître Madické Niang dama jël ay sanctions yu faire état Sénégal na fay Kouthia ceebu waalo bi ndax monsieur le président de la République les Sénégalais ont consommé le ceeb di waalo te a fay dañ ko fay ndax ceebu waalo sénégalais yi consommé nañ ko africains yi consommé ko waa diaspora bi consommé ko article 1445 loi du 12 de la commercialisation du marketing du riz du Valais me permet de défendre l'état actuel des faits Macky Sall fayal xaalis Kouthia mais moo gën ci yow. dëgg la moo gën ci yow fay ko xaalisam. dëgg la maître fu ñu xaw a euh, euh, euh, nu bàyyi la nga récupéré tuuti. déedéet du ma récupéré de parce que sa doom Amadou Sall Kouthia nee na dana topp de. ah na dana topp sa doom te dana confiscation des biens d'état et des personnes représentant le président de la république Kouthia bu ko neexee dem le gouverneur le préfet le sous-préfet Kouthia am na droit bi parce que état Sénégal la war a jox xaalis mais nañ ko fay xaalisam. nañ ko fay xaalisam pendant 6 mois 7 mois Kouthia di ci wax Macky Sall mënu ko jox xaalisam mais na nga fay xaalisam. dëgg la dëgg la dëgg la man mii di plaider ba sama ba sama baat bi dee ma ci Kouthia war a jox bu fekkee baat bi dundaatul kuy dee. yaay dee bilaa yaay dee. maa <laughs> dëgg la wax dëgg yàlla ma dikk mais gisoo ni actuellement wax dëgg yàlla dafa mel ni yaa ngi ci barab bi taxaw. waaw dafa mel ni li may sentir mooy wax dëgg yàlla yaa ngi ci barab bi taxaw. ministre la ministre bi nga xam ne moo yor commerce bi ceebu waalo tey fi mu toll ana ana ana ceebu waalo. kenn déggatu ko kenn déggatu ko. waaye ñi nga xam ne tàmmoon nañ ceebu waalo ñu ngi koy consommé mais moo ko président Macky Sall fayal Kouthia xaalisam 150 millions yooyu wàññi wala dara. su ko defee Kouthia daara jël ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal mu jox leen ci. Mm-hmm. parce am na ñu bëri ñoo xam ne Kouthia da leen ci war a jox Mm-hmm. su ko defee Kouthia laaj naa ko cent cinquante millions bu génne loo ci def mu ne ma man du ci def dara du dul xam nga <laughs> dana ci dana ci ab rajo ak télé wala <laughs> ko déedéet fan nga waxee woon kay fan nga koy demee waaye Kouthia nag ko ci defal jàmm mm-hmm. naa ko état Sénégal bu fekkee ne loolu man parce que du ma lekk ci loo xam ne xam nga sax de revenance la yaa yéwén gore kon état Sénégal bu fekkee nañ fay Kouthia xaalisam trésor am na xaalis Macky Sall doo fay xaalis Kouthia benn yoon nga noppale ko am jàmm sa doom fu mu génn Kouthia nga koy bëre loo chaque samedi ñu bëre combat kenn loolu af na yoo xam ne dafa Macky fay xaalis mu laaj xaalisam de. parce que loi 12 mooy wax tout consommateur d'un produit. Oh. et commercialisé dans un marketing national citoyenneté. Ah. l'acte 12 ak article 4045 du décret de loi notification de loi de commerce pour la vulgarisation et la sensibilisation d'un acte civisme pour une appropriation et massification